Ndanane TV Ndanane Ndanane information yu leer émission yu leer plateau yu naaj KNTV dikkati naa coow ci pëndub teen bi dañu naan gaañ amul baa baaga bugaan ngay dani ci critique yéen kaay naan déet Macky Sall kay fi mu ne ci réew mi moo yor baak yi mooy séddale Sall jébbalal baak yi ñëpp ci opposition bi ñu mën bokk ci élection yi turbine yéen a kaay naan Souleymane Ndéné Ndiaye dee ngay joxoñ président Macky Sall naan kon baak yi ngay séddale ci réew mi na ci Ousmane Sonko bokk manoo jébbal baak baaba Babacar Sall jébbal baak Karim Meïssa Wade na ci Ousmane Sonko ne ko doo bokk Souleymane Ndéné Ndiaye ci turbine yéen a kaay naan kon du dëgg du yoon moom Jules ci direct news naan wax ak Sall ngaari lam toora buur géne day ma ngay bëgg jot ma ne la foo baalee Khalifa Karim Meïssa Wade war fa mën a jéggalee Ousmane Sonko mu bokk ci les élections bugaan ci l'indépendant naan koon mooy dëgg de ndax nag ay élection la ñu jëm yoo xam ne ñépp war a bokk critique yéen kaay naan kon du xam nga duma ku man sa morom duma lii nag la élection présidentielle 2024 di la tribune yéen kaay naan kon du yomb te mësta yomb ay élection la yoo xam ne 2024 mësta am ci réew mi élection la yoo xam ne ñaari wërngal gi mënta ñàkk deuxième tour élection la yoo xam ne amul favori ma ne la ñay départandoo ca course ba ñoo bokk doole candidat yi ñoo bokk doole bokk sañ-sañ te élection la yoo xam ne kenn mënu koo gañe ci premier tour ma ne la lii am ci réewum Sénégal ren ji mësta am ci élection critique yéen kaay naan kon ma yigli Benno Bokk Yaakaar moom ña ngi koy tojate rajax déggoo ma ni la duma ku man sa morom duma ay coup irrégulier ci wàllu politique mi ngi daal di dugg ay lobby yoo xam ni maar day taali ku ne fas yéene nag la nga xamal sa morom nga dal di koy goxi génnee ko di waajal nag sàll ngaari lam tooro buur gede kan la fas yéene teg ci bopp bi ngir waa Benno ci boppam daal di ko di jee naan man kan la Sall war a tabb ci ñii Amadou Ba moom primature bi ci boppam moo ko joxuk tànk Mamadou Boun Abdallah jonn gore gi mu gore ci Sall ngaari Abdoulaye Daouda Diallo moom la Sall wóolu Aly Ngouille Ndiaye liggéey bu amul na naatable Amadou Mame Diop nag moom booy wër kuy doon Sall mën ngaa jàpp le point yéen kaay naan kon fu ngeen fàttee Arona Dia homme d'affaires bi nga xam ne lii teel doomu aadama yi moo ko tax a jóg jaare ko ci wend bosaay be ba Tunisie ñëw ba añam Touba Ndakaaru ak banliyaam dem Ziguinchor ca diaspora ba doore ko Burkina Faso yéen bi naan maan aaruna jadey ma nga jàpp ne nit mënta am te boo seetee fukki mbokkam ye ko wër amuñu le point naan man l'homme social la sàll ngaari war a geesu le ko le quotidien naan ko en tout cas lu mu cay def na gaaw moom président Macky dogal bu mu mën a jël ci ko koy wutu na gaaw 24 heures yéene kaay naan en tout cas ci statut chef de l'opposition bi la sàll ngaari lam tooro buur génee nar a jaar nag faagaagal leen fa yallaaxu ñi ngi ruuma naat di togg loo xam ne maar day taali bugaan gay dani ci yéene kaay bi nan ak lu mën a am président Macky Sall na xam ne 2024 2024 atub coppite la di réforme 2024 woo xam ne daañu soppi justice nu muy doxee ci réew mi daañu yëraat ña nga xam ne ñoo yoroon suñu amaam naka lañ ko yoree waaye tam yëraat scandale nga xam ne bëri na ci Benno Bokk Yaakaar ndax nag coowal Covid bi moom mi ngi ci l'observateur naan kon Sall nag war na leeral lii bugaan gay dana ci suur saa naan kon bu ko neexee bu mu ko leeral de ndax ñun moom bu nu yoree réew mi leeral fa yallaaxu naan kon opposition bi ci boppam booloo doole wala faatu fa yallaaxu moo fi nekk l'évidence naan maan bugaan gay Dany nee na président Macky Sall la la war fi mu ne comme nee nga bokkatoo Sall baal ñu rek libéral détenu politique yi nga xam ne ñoo am ci réew mi vox populi naan maan gay maam góor nga nga jàkkaarloog waa opposition bi naan leen kaay leen ñu waxtaan ci suñu biir ndax nag àtte bu jubee penc ci néeg lañ koy waxtaanee xam nga ñun opposition bu réewum Sénégal dañoo tasaaroo te tasaaro boobee man ñu jural fitna 2024 kaay leen ñu waxtaan ci sunu biir ndax 2024 nag yàlla tàcc na ñun opposition bu réewum Sénégal Sall nee na bokkul ñun ci boppam ñoo war a doxal talal nag ba fa ñu ko bëggee loole pour mu am ma ne faaw ñu boole def ñaari say woo xam na yu dëgër lay doon coow li mooy fexe ba 2024 kenn du ñu fa xastal waaye tam kenn laa la wax ni kenn ci Sénégal jël réew mi le regard yéen kaay naan man bugaan ma nga naan am nañu génn ndam ci président Macky Sall mooy fexe nan ba ñetteel bi mandat moom Sall génn na ca la ca des nag moom moo di daal xeex ngir libérer Sénégal libérer Sénégal nag day dooree ci libérer ña nga xam ni moom président Macky Sall nee na leen ciix daal di téye Vox Populi naan man soxna yaa ngay doxal de ña nga samp seen i ndënd jëm ci élection présidentielle yi fas yéene doxal nag ci tànku góor ñi Rose Wardini nee na candidate la turbine yéen kaay naan man Juma Jeng Jaxate it nee desul gannaaw léegi nag moo jiite sous coalition bii di groupe des hors coalisés liberté ak responsabilité ñu di pee leen GACLR moom Juma Jeng Jaxate ci tribune yéen kaay naan fal nan ma de waaye fi mu ne sama sàkkuteef lenn la moom moo dina ñu daal di saytu ñëpp wax ak ñoom ngir nag Benno Bokk Yaakaar am candidat boo xam ne ñëpp cay ànd te ñëpp ko booloo waxtaan ci néeg docteur Abdourahmane Diouf ci yéen kaay des médias bi naan nañu xool bu baax ndax nag Sénégal ba mu moomee boppam ak tey kenn mësta fal président nag boo xam ne ña ngi ko basé ci programme yéen bi naan maan waxtu F24 ña ngay sàkku Aliou Sané mi nga xam ne ña ngi ko teg gët fas ko yéene yóbbu ndungu siin ñu daal di cay deltu ginnaaw ndax nag mënoo génn ci troisième mandat bi ba ñëpp approuvé nga bëgg jël ñëpp jagat ci kaso bi ba élection do am Bougane Gueye Dany ci yéene kaay bi naan kon xeex nañu ñetteel bi mandat xeex nañu yow président Macky Sall ngir nga abal nu Sénégal léegi nag abal nga nu senegal la des kay moom mooy nga bàyyi sénégalais yi ñu bokk ci élection sénégalais yi nga xam ne ku ngang tëj nga ba ko sàll ña nga xam ne jot nga leen yóbbu ci ndungu siin ca kaso ba génnee ca décide moom moo di ña nga naj ne leen duñu bokk ci élection bi nga bakoo na nooy sàll na ñëpp bokk ci élection mooy dëgg waxtu woow vox populi di ma xamal ne gouvernement gu Sénégal day ma ngay xupp France 24 ca na muy awale ay xibaaram ci réewum Sénégal mel ni nag ku nennu réew mi di jël ay xibaar yoo xam ne wérul di ko jor réewum Sénégal libération yéen kaay mel ni ku naan maan Sénégal yàqu na wala ca cité Apix ab xale bu am fukki at la ñu fekk ci koofur benn mu daal di faatu ubbi xool dëgg-dëgg xale bi lan anam la daal di faatoo. KNTV Kër Ndanaan TV Ndanaan Ndanaan information